may ma ba tontu ko ba pare li bugaan def mm. sa mbeur moomu ngay samp nga xamni ne tojut fenn mm-hmm. nga xamni ndox mu sedd muy ray mat la foko gis muy layam layami dama ni foko gis muy layam layami mm. dama ni la mm-hmm. sant yalla la parce que ñun ñi ngi dogo dem élection dama ni ñi ngi dogo dem élection dañ ñewon mënuñu ko ñu roppi parti yu mag yi fi nekkoon yëpp simpi leen teg ci suuf dañ ñëwoon mënuñu ko ñu ñëw génn deuxième national ñu ñëw génn deux troisième troisième la ñu génn man sama centre de vote bi ma wotee xam nga lu ma yeewi raw huit voix la ma yeewi rawee buum Kër Masar man fi ma wotee sama sant de vote huit voix la ma fa yeewi rawee maa la fa raw fuuf dama ni may ma ma ñëw may ma ma ñëw yow da ni dama ni la xolal degluma la la wax dang ma deglu eh de la meñ du lekk moroom ma tañor kii la gëna xamni dina ma deglu, ki moma ma xamni dina ma deglu li gan def ñom ñor yor pouvoir bi buñu ko defoon kon senegal day melni ni Paris ñom ñoo toju fenn ñom ñu yor caisse noire yilif jawu ji yilif jeri ji te defuñu dara askan yu ñepp àndandoo torox muy seen nguur li gan def yéen a ko dugal ci social yéen a ko dugal ci mu xool askan wi yërëm leen xam ne nii bundu xataal ngeen askan wi mu dimbali di leen dimbali di tabaxi jumaa amul ndombal tànk doonu ministre doonu député yéen a ko bundu xataal muy tabax ay hôpital yéen a ko bundu xataal mu créé employé de jeunes yéen fese leen ne woon da ngeen a waroon a fexe yéen ci seen bopp créé li buggaan ne ko kaytoo créé li buggaan créé kon benn kon gaal gii kon géej gi dootoo ci gis géej nit kuy napp bay dem bay jàll gaal. alors par rapport yéen li leen ko. madame Seck par rapport ak sama question amut. Mhm. bugaan nag néewut kenn kaay bëgg ma réew mi ko bëgg ndax da leen